الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نجي سنتر سني بروم سبحانه وتعالى دي كونان مجلس ينتم صلى الله عليه وآله وسلم ñu dellusiwaat ak yéen ci suñu téere bi ñuy topp di risala bi ibn abi zayd al xay al xayrawani ñu war a yëg si tey incha allah ci la nga xam ne mooy suñu bunt bu mujj ci téere bi mooy ñeen fukkeelu bunt bi ak juróom baabun fi ruya wa tasaub wal utaas ila axiri tey mooy le 21 mars ci 2021 di tombeeg le 7 ci la nga xam ne moom mooy weeru Shaaban ci 1442 ñun ñëpp bu ñu bokkee gis mooy baabu 45 bi kon bu ñu jàngee day wax ni baabun fi ruya mooy ay gént wa tasaub wala fi dañ koy wax bébbali wala otaas ak tisoli wala laib bi nard mooy foye ci ay yoote wa xayriha ak leneen lu dul loolu wa sabqi ak la nga xam ne mooy course bil xayli ca fas ya war ram yi ak sànni ay xeej wa xayri zalik ak leneen lu dul loolu qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam arruya alxasana min arrajuli salih juz'un min sittatin wa arbaina juz'an min annubuwa gént gu rafet gu jóge ci góor gu baax benn cër la ci ñiin fukki lu cër ak juróom benn yi nga xam ne am na ci ak yonent wa man raa minkum ma yakrahu fi manaami ku gis loo xam ne da ko neexul ci géntam fa iza stayxaza su yeewoo fal yatful an yasaarihi salaasan na daa di ëf mooy ëf yu génn ak tuuti ndox ca côté càmmoo ñoom ñetti yoon wal yaqul gannaaw ba mu teg ca allahuma inni a'udhu bika min sharri ma ra'aytu e yàlla maa ngi làqu ci yow nga musal ma ci ayu lii nga xam ne gis naa ko fii manaami ci samay nelaw an yadurrani fi diini wa dunyaaya ci loolee di ma lor ci sama àdduna ak ci sama diine ak sama àdduna yépp kon mbokk lii mooy wàllu gént gis nañu ne yonent yàlla bi ñaar fukki at ak ñett la ko yàlla yónni ci biir ñaar fukki at ak ñett yooyee juróom benn weer yi jiitu yàlla di ko yónni lum masan gént su ko nettalee balaa yàgg ñu gis ko mu leer naññe boo xoolee ñaar fukki at ak ñett ñiin fukk ak juróom benn moo ci nekk ci par juróom benn weer at bu ne ñaari juróom benn weer la moo tax yonent bi alayhi salaam ni waa joo xam ne jo baax la xam nañ ni kii kuy dund diine la moo gént gént gu rafet lu mel noonu day cër la bu ko yàlla xamal mu bokk ci cëri yonent yi te mooy yàlla dana bégal ay jullit jaare la ko ci gént imma gént gi jëm ci yow wala mu gént jëm sa mbokk jullit tey jii sa mbokk jullit mën na faatu yàlla dogal nga gént ko muy dem aljanna wala yu demee noonu loole di ngay gis ni bég la gu yàlla di bégalaate mu bokk ca kumpa mu des nag waa ji tëdd guddi gént lu ko neexul gént na mbokkam bu dee gént na accident gént na alalam yàqu loolu mbokk ci seytaane la jóge bu dee gént gu rafet ga ci yàlla la jóge ruya saliha min allah waaye bépp gént bu la naqari ci seytaane la jóge mooy ñëw di li tourneel benn film ngir indi lu la naqari sa xol mi ngi noonu su boobaa yonent bi alei salaam nee na boo yewoo da ngay ëf sa côté càmmooñ tuf tuf tuf ñu ngi noonu ëf goo xam ne ay tuuti dana ca génn ci ay taflit bu ko defee yaa ngi ciy jublu seytaane bi nga xamee ne nii moom moo lay feeñu ci say gént gannaaw ba nga ne yàlla maa ngi lay ñaan nga musal ma ayu lii ma gént yàlla bu ma lor sama diini yàlla bu ma lor sama adduna gannaaw ba it nga tranquille ca xam ne yonent bi nee na boo ko defee du la lor la ci tegu it bu ko nettali kenn su dee gént gi gént gu rafet la bu ko nettali lu dul koo xam ne bëgg na la te loolee da ngay gis ne alxuraan ko jëkk a woote keroog ba yuusufa génte yàlla wàcceel ko jant bi ak weer wi ak biddiw yi baayam dana ko lii bu ko nettali sa doomi bàyyi ndax kon dañ la fexeel ndax ñoom bëgguñu la kon loolu mbokk mooy la nga xam ne sunnay gént gént nga lu la lu la neex bu ko nettali lu dul koo xam ne bëgg na la man ngaa ñaan yàlla it yàlla dëggal gént gi gént nga lu la naqari ëffal sa côté càmmoñ ñetti yoon muslu ci cheytaani muslu ci gént gi lor la ci diine wala adduna gannaaw ba it moom bu ko nettali kenn lii mooy wàllu googee suñ jëlee beneen bind mu ne wa man tasaaba falyada yadahu ala fiihi képp kuy bébbali di ŋaaŋ na teg loxoom ci gémmiñam wa man atasa falyaqul alhamdulillah ku ti sóori na wax alhamdulillah wa ala man sami'ahu yahmadullah ku ko dégg muy sant yàlla an yaqula lahu yarhamukallah naka wax yal na yàlla yërëm la wa yaruddu alaatis alayhi yaxfiru llahu lana wa lakum te tisuli woon ne ko yal nañu yàlla jéggal jéggal leen aw yaqul yahdikumullah wala mu ne yal na yàlla jubal leen wa yuslihu baalakum te yéwénal seeni mbir yépp loolu mbokk kon lay wax ci wàll googee booy tisuul booy ŋaaŋ te jël sa gémmiñ yonent bi alayhi salaam nee na nit ki buy ŋaang seytaane day profité dugg ci moom te jël sa gémmiñ loolu moo ci sunna am na ñuy wax a'uuzu billahi min asheytaani rajim loole du zikr bu jóge ci yonent bi alayhi salaam mu jàngale ko koo xam ne nii da koy waxit bu mu koy wax toujours na xam ne daal heure bu ŋaange seytaane ngi bëgg dugg ci moom mu tëj gémmiñam loolee buy muslu ci seytaane it mu xam ne dana ko muslu ngir xelam daa dem ci seytaane waaye du ko doon zikr ba muy saxal ne fa mu ŋaange rek wax auzu billahi min asheytaani rajim ndax yonente bi jàngalewul loolu amma bu dee tissooli ki tissooli loolu ci yàlla la jóge bébbeli mi ngi jóge ci seytaan tissooli mi ngi jóge ci yàlla boo tissoolee nga naan alhamdulillah doonte ne alhamdulillah rek lañ ci sunnaal alhamdulillahi rabbil alamin lu baax la waaye nag sunnaa luñ ko foofu alhamdulillah maa ngi sant yàlla ay mbooli mi cant ñel na yàlla képp ku ko dégg lu mu koy wax yarhamukallah yal na yàlla yërëm la képp ku ko dégg kookee ndax mboolu mi yépp a ko war a waxandoo am bu dee am na ñu ko ca wax dana doy loolu am na ñu jàpp ne ku ko dégg rek war nga ko wax loolu doonte ne ne borom xam-xam yi dañuy wax ne su ko kenn tontoo ca mbooloo ma rek loolu yi dana doon lu doy comme ni nga xamee ni kii ñëw romb mbooloo nuyu leen bu ko ca kenn tontoo loolu yi dana doy amma ñooñu ko wax yarhamukallah lam leen di tontu mooy yal na yàlla jéggal ñu jéggal leen yaxfirullahu lana wa lakum bu ko neexee it ne yal na yàlla jubal leen yéwénal seeni mbir yahdikumullahu wa yuslihu baalakum doonte ne bu mujj bi moo ëpp tegtal ci xadiisam moo gën a dëgër loolu it mbokk mi ngi noonu doonte ne li ñu tubaab bi indil mooy journaliste yeeg ñeneen da nga dee ku tissooli pardon daal di jàll mbokk pardon loolu koy pardonné wu gis ngeen ala kulli xaal loolu tubaab bi mu ñu ko indil am na ci ñoo xam ne ñoom mer di lañ cee teg mi ngi noonu waaye ala kulli xaal jullit moom suñu borom da ko may occasion zikr occasion ñaanalante jàmm ñaanalante yërmaande loolu tax gis nga da ngay sant yàlla nit ñi ñaanal la yërmaande yow it nga ñaanal leen jéggal ñu ngi noonu ñaanal leen yàlla jubal leen suñu jël beneen bind wala yajuzu laibu bi nard wala bil shatarnaj la nga xamee ne mooy ay yoote ci su réewul ak dem yi rek mooy ñuy dëkk ak ay naar yenn yi xam ne daanañ ko gis ay yoote wala li ñuy tudde ay na doon ay échec la ala kulli xaal mooy lépp loo xam ne ni ay bantal yu ñuy tiim di ca carte loolee da ngay gis ne islam nanguwut loolu mi ngi noonu wala ba'sa an yusallima ala man yalabu biha dara nekkul nag boo rombee ñee ñu nga nuyu leen wa yukrahul julus ila man yalabu biha waaye sib nañu nga dem toogaaleeg ñay foye foyooyee wa nazru ilayhim nga nekk toog di seetaan jëm ca ñoom na am mbokk kon mooy façon dem yee yooyeeg bëlut yooyeeg ak yoote yeeg yooyu nga xam ne ay kilifa ay mag dañuy toog di ca yàq la nga xam ne mooy seen temps mu ne loolu yeeyul jullit di ko def mu ne boo rombee nag du tee nga nuyu leen waaye xam ngeen lu bëri ci ñoom sax boo leen nuyoo duñ la tal waaye yow teewul yow nuyu leen rek jàll mu ne nag sip nañu même yow boo kartul nga dem toogaale ak ñoom wala nga ñëw toog di leen seetaan loolu kon di mbir boo xam ni dañ ci war a bàyyi xel bu baax mu ne wala ba'sa bi sabq bil xayli ci mooy ñi ngi jël beneen bind mu ne wala ba'sa bi sabq bil xayr dara nekkul ci course ci fas wa bil ibili ak ci gileem ya wa bi sihaami bi ram yi ak di sànni la nga xamee ni nii mooy flèche ya wa in axraja shay'an bu dee dañoo génne dara ja'ala baynahuma muhallilan daañ indi ñette seen diggante keñin ku leen di daganal su dee ñaar ñu ñoo teg yaxudu zalika al muhallil kookee nga xam ne moo ñëw di daganal mbir ma daal di koy jël in sabaqa su dee moom moo raw in sabaqa huwa bu dee moom moo raw wa in sabaqa ghayrahu lam yakun alayhi shay'un bu dee keneen rawit moom du teg dara du ko ca war hadha qawlu ibn al-musayyab lii may waxi ibn musayyab wa qala malik malik moom dani innama yajuzu an yukhraja rajul sabaqan lii dagan kay mooy góor génne lenn loo xam ne ku raw jël fa in sabaqa ghayruhu aqazahu bu dee keneen ku dul moom moo raw jël ko wa in sabaqa huwa kaana lilazi yalihi su dee ni moom moo raw ñu jox ko ki topp ci moom min al mutasaabiqin te ña nga xam ne dañuy jëkkante wa in lam yakun xayru jaa'ilin sabaqa bu dee ne keneen ku dul moom nekku fa wa aaxar fekk keneen la doon rawanteel raw ko fa sabaqa jaa'il ka nga xam ne moo teg daal di raw akalahu man xadara zalik dana ko lekk ka ña fekke loolee masala bi mbokk julit mooy ñu bëri ci la ñuy sukkandiku ne pays mi dagan na te mooy teg ci course fas waaye mbokk loolu ñoo ngi ko teg seen bànneexu bakkan islam nanguwul ñu daje teg am ko gañe ñi leen perte waaye l'islam ngir encourager jihad ca la doon xool farmi ñi jihaate mooy gilim yeeg fas yi ak xeej yeeg flèche yi ñu mën caa teg ay teg teg boobee ku mel ni ibnu musayyab kooku moo nekkoon imam la woon moo jiitu imaamu malik ci juma madina moom da daan wax ni ay nit bu ñu àndee di course bu dee teg nañu fokk ñu boole ci ku tegut fokk ñu boole ci ku tegut nga xam ne moom bu gañee dana ko jël fekk tegul dara su ko defee keneen ku gañe doog a mën a jël loolu la wax moom ngir ñu moytu na carte kat yi di def ñëppay teg bu ñuy perte am ko gañe ñeneen ñuy perte ku mel ne Malik moom dana déedéet bu ñuy course daal ni mën a mën a ci teg mooy ki teg teg bi mën naa teg ne gaa yi kaay leen ñu course ku gañe ca ñoom jël ko moom bu dee moom mi teg moo gañe ñu jox ko deuxième bi su dee kenn dong la doon kursal mu teg far mu far ko raw ñu jël loolee mu tegoon jox ko mbooloo ma fa nekkoon ñu séddoo ko waaye moom du ko du ko jël di ko lekk lii lépp mbokk luñ ciy bañ ngiree mu nuroog carte gi nga xam ne dañ koy carte fu nekk waaw gaa yi masala bii ngeen dégg nan la wuteeg pays mi waaw ko kon pays mi l'islam xamu ko l'islam xamu ko ci seytaane la jóge walla waaye képp ku koy def na ko bàyyi ca it li li li li sunu borom wax ju dañ yàlla nee na carte day indi noonu wallahi mbokk waxuma leen barki démb de démb laa wax démb benn soxna ñëw na ci man dama ah imam day sama borom kër day carte rek lu mu am carte ko lu ñu war a joxe ci kër gi mu bañ dem di carte demoon naa nag ba mer ba na ko man dootuma siq ak yow ci dara léegi nag affaire bi mi ngi yàgg ma doon laaj lu ci lislaam wax ma ne ko day sa position bu bu noble la waaye nag lislaam mayul jigéen loolu ngay dummoo yu sa borom kër loolee la ma ci doon jubluwaay rek li yàlla wax ne carte day indi noonu xoolal kooko carte gi dem indi noonu ak soxnam ak i doomam loole benn échantillon la boo xam ne dimb la xew moo tax ma wax leen ko waaye kenn xamul carte bu sif bu nar a indi su ko defee tubaab bi moo ñu lor indil ñu loterie nationale ñoo taaral ko ni les bénéfices parieurs yi ñooy gagné bénéfice pour toute la nation Sénégal gépp lañ carteloo mi ngi noonu pays mi national di institution nationale ñu ni bénéfice bi ñun ñëpp ñoo koy lekk mbokk loolu day delloo gannaaw am réew loolu dañuy bàyyi ci xel bu baax baaxul jullit waru koo bëgg waru koo seetaan buñ jëlee beneen bind mu ne wa jaa fi ma zahara min alxayaat bil madina ñëw na ca lay feeñ ci ay jaan ci biir madina an tu'zana salaasan ñu jox ko ndigal ci ñetti fan wa in faila zalik fi ghayriha loolee bu dee ne def nañ ko ci feñeen fudul madina fa huwa hasan ba tey loolu lu baax la wala tu'zanu fi sahra kenn du jox ndigalit la nga xam ne yëglu mooy di yëglu kenn du yëglu ca àll ba wa yaqtal wa yaqtulu ma zahara minha wa yuqtalu des na rey ma zahara minha lépp lu ca feeñ mbokk lii ab attale boo xam ne xam naa ne ceeb mi ñu duñ ci d'accord yonent bi sallallahu alayhi wasallam def ne yéen ñi dëkk Madina heure bu jaan ñëwee seen kër na ngeen na ko eh yow jaan su dee ne gëm nga yàlla gëm yonent yàlla bul bul ñu feeñooti bul ñu feeñooti mbokk jinni yi ñoo ñoo ma dëkk fu nekk waaye feeñu gan ñuy feeñu ci la ñuy mën a lore bul ñu feeñooti boo xëyee gisaat ko wax ko ko boo xëyee gisaat ko wax ko ko ñeenteelu fan ba rey ko mu ngi noonu mu ne loolu bu dee Madina loolu la yonent bi alayhi salaam waxoon. mu ne nag bu dee feñeen fu dul Madina ku mën a def loolu yit lu rafet la ñu ngi noonu nga gis jaan sa biir kër ndax ñu ci bëri ay jinne lañu te ñu ci bëri dañoo gëm yàlla nga ne ko eh yow bu dee gëm nga yàlla bul ñu feeñoo ci loolu mu ne rafet na donte ne boo jógoon rey ko it saa nga tàggu ko loolu dara newu ci amma nag bu dee jaan yi nga dajal ci àll bi moom su boobaa moom moom boo ko mënee rey rey ko yeneen ci bala sax moo dig la ñu rey leen boo ko mënee rey rey ko. amma boo demee ci yenn dëkk yi da ngay gis ne da ngay gis ñu naan ñi ay jaani dëkkaale ay kaza wa kaza loolu am na ci ñoom waaye ala kulli xaal atte bi moom mi ngi gën a aju ca ña nga xam ne dañoo dëkkee Madina mi ngi noonu ngir bañ a guddal sax waaye sinon benn waay ñëw na ci xasatu xandaq mooy histoire bi ñuy romb yoggul dara mu ñëw ne yonent bi alayhi salaam dama bëggoon a dem kër ga waay am lu ma fa def yonent bi jox ko ndigal fekk mi ngi doon takk doog a takk benn séet mu ñëw rek gis ñaari góor ñi ngi siq soxna si mu mer rek génn xeejam soxna si ne ko defal nank defal nank defal nank mu ne mu ne ko looy def fi ak góor ñi mu ne ko kaay dugg xoolal li nekk ci biir néeg bi mu dugg rek gis benn ngandam ñàngoor mi ngi lalu ci kaw lal bi mu jël xeej bi mu yonoon rek dëbb ko ko bi mu ko ko dëbbee rek ñàngoor bi jóg rek laxasu ko ñoom ñaar ñu andi de battar ñu ko de battar ñu ko ba dañ ni biñ dee xamuñu moo jëkk a dee ñàngur bi xamu ñàngur bee ko jëkk a dee yonent bi alei salaam ne leen nag attention am na ay jaan yu ñëw Madina ay jinne lañu ay jërit lañu képp ci yéen ko gis jaan bu mu ko tëb rey na ko wax ne boo gëmee yàlla bul ñu feeñooti mi ngi noonu kon jël beneen bind mu ne wa yukrahu qatlul qaml rey nañ sib nañu li nga xam ne mooy rey lii di teeñ ya wal baraxiis ak la nga xam ne mooy fel ya bi noor sib nañu leen di reye sawara wala basa insha allahu bi qatli naml mu ni dara nekkul bu soobee yàlla ci rey xorondoom yi ida azat su dee xorondoom baa ngay lor walam yuqdar ala tarkiha ci amuñu kattan ci man koo bàyyi ba lor googu deñ walaw lam tuqatal kaana ahabu ilayna donte ne lu mu lor lor day ñu bañoon ko rey moo ñu gënal wa yuqatal wazo dees na rey li nga xam ne mooy unk way yukrahu qatlul dafadi sib nañ ñuy rey mbott yi wa qala nabi alayhi salatu wassalam inna allaha azhaba ankum aybatul jahiliya yàlla day dindi na ci yéen rëyub jahiliya gu jëkk ga muy réer gu jëkk ga wa faxruha bil aba ak puukare gën doon puukare woo seen bàyyi li fi nekk mooy muminun taqi jullit bu gëm yàlla aw fajirun shaqi wala kaccoor boo xam ne dafa texee di antum banu aadam yéen ñëpp ay doomi aadama ngeen wa aadamu min turab aadama ci ban la jóge wa qala nabi alayhi salatu wassalam fi rajulin taallama taallama al ansab yonent bi wax na ci góor goo xam ne taallama ansab annas daa jàng li nga xam ne mooy fami nit ñi mooy géñog nit ñi ni ñi bokke yonent bi ne ilmun la yunfa la yanfa xam-xam la bu amul njëriñ wa jahalatun la tadarru la nga xam ne mooy réere ko amul benn lor wa qaala omar omar moom daana wax taallamu min ansaabikum ma tasiluuna bihi arhamakum jàng leen ci seen mbokk yi lu ngeen di mën a jokkoo ca la nga xamee ne nii moom mooy seen famille yi mu ne wa qaala malik malik moom nee na wa akrahu an yurfaa fi nasabi fi ma qabla al islam min al aba sip nañu ñi tudd ci mbokk gi ñoo xam ne dañoo romb ca islam ay ñoo xam ne ay jurit lañu ca la nga xam ne mooy sunu bàyyi mbokk kon bind bi moom li muy wax rek mooy jullit du reye sawara ak la ngay rey lu mën a doon yonente bi alayhi salaam dane la yu azabu bi naar illa rabbu naar yàlla moom sawara looloo tax jullit du reye sawara loolee ñu bàyyi ci xel bu baax looy rey doo ko reye sawara mu ni li nga xam ne moom mooy xorondoom nañu xam ni bu dee daf la lor xorondoom yaa ngi nekk sa néeg foo tur nañu matt la ah su boobaa moom lor la rey ko dara néewu ci ndax xam ngeen yonent bi daa tere ñu rey xorondoom am maa nag bu dee mi ngi lay lor su boobaa mën nga koo rey donte ne mu ne boo mënul négocier ak moom ba bañ koo rey loolu mooy la gën waaye daal bu la loree nee na mën nga koo rey umku islam dafa santaane ñu rey ko am na yenn riwaaya wallahu aalam nee nañu ba ñuy sànni suñu mbay ibrahima ci sawara wa bokkoon na ci ñu doon suuf sawara wa te mooy ab kàccoor la bon ci bàyyima yi mu ne mbott it sip nañu koy rey mbott loolu ñu bàyyi ci xel bu baax yonent bi alei salaam it mu ne ay yéen julit ñi yàlla teggi na ci neen yax bu rëy ca naka ceddo ga doon waxe nga xam ne sénégal la ëppee ñu ngi noonu man nangam piir la man nangam piir la ku ne jàpp nga ne yow piir nga ala kulli xam mu ne yàlla teggi na ci yéen loolu pour ko réwu ci famille ba nga bokk yàlla teggi na ko ci yéen xam leen ne ñaari ñi dag ñoo nekk ci kaw suuf jullit bu ragal yàlla ak kàccoor bu la retexee di ñaari nit mën nañu bokk ndeeg bàyyi kon xel xalaatul ci ne ay maam ak yooyu ñoo ko bokk waaye ndeeg bàyyi ñu bokk ko kii nekk jullit bu baax kii nekk kàccoor kon mbir yi nit ñi seen gënal te nekkul ci seen cosaan seen gënal te mi ngi nekk seen ngëm ak seen jëf yéen ñëpp ci aadama ngeen jógee te aadama ci suuf la jógee loolu muy wañe ne yéen ñëpp ci aadama ngeen jógee kon bi ko naan man tooro de pire bambalo pire soroxole pire arab pire nangam pire pire pire boobu yàggul ñun ñëpp ñu bokk benn maam aadama ca encore aadama ci suuf la jógee waa gars yi ku jógoo ci suuf nara delloo ci suuf looy réy réylu ñu noonu doomu aadama ci suuf suuf mooy sa cosaan balaa yàgg ñu gas suuf dugal la ci réy réyle googu ban njëriñ la am looloo tax mu ne am na ku ñëwoon xam-xamam yépp mooy xam famille yi ni mu tëddee ñu ne yonent bi nee na xam-xam boobu dee xam ko amul njëriñ réere ko amul njëriñ donte ne xadis boobu wérul ku mel ne Omar moom daana wax ne kay ku nekk ci yenn jéem a jàng ci famille lu muy jokke ay mbokkam loolu mooy njëriñam nga xam ne diw day yéen a bokk maam wala diw day sun ñaari maam ñoo bokk loolee moom nga def ko ngir jokk mbokk gi pas pour puukariwu ci ñeneen ñi ngeen bokkalul waaye si yéen neen ngeen xamante jokk mbokk loolee da ngay gis ne loolu la te loolu xam nañ ne sun maam yi amoon nañ ci cër bu dee arab yi amoon nañ ci cër ba boo demee ci yenn mufassiroon yi wala yenn yi wax affaire mbokkoo sax bu ñuy wax ulul ki ki nga xam ne mooy ulul qurba say jegeñaale dañ naan ki nga bokkal ñeenteelu maam gis ngeen ki nga bokkal ñeenteelu maam ñu ñëpp say jegeñaale lañ ala kulli xaal xam sa famille ngir jokk leen loolu rafet la waaye xam sa famille ngir puukure woo ko loolu ceddoo la islam nanguut loolu loolu kon mbokk mi ngi noonu bu dee dañuy jël beneen bind mu ne wa ru'ya saliha juz'un min sittin wa arba'ina juz'a loolu jàngoon nañ ko min nubuwa wa man ra'a fi manamihi ma yakrahu ku gis ci nelawam lu mu sib falyatful an yasarihi salasan no ëf ci côté càmmoñum ñetti yoon wal yataawaz min sharri ma ra'a mu muslu ci loolu wala yanbaghi kon loolu moom wax jàngoon nañ ko da ko répété rek mu ne wala yanbaghi du yey nag an yufassira ru'ya man la ilma lahu biha du yey koo xam ne amul xam-xamu la nga xame ne nii moom mooy gént di jéem a firi gént googe mi ngi noonu mu ne wala yu'abbiruha ala ala al ghayri wa hiya indahu ala al makruh kenn du firil nit ki yi gént ca la muy firi nekk loo xam ne nii moom da koo sib kon waxoon na ci wàllu gént lam cay dolli rek fii mooy di firi gént koo xam ne jàngu ko bu mu koy def te loolu boo demoon tey am na ay téere yoo xam ni dañuy jàngale firi gént waaye léegi-léegi it da ngay gis ne ñooñu doon bindi téere yooyee seen jamono bokkul ak suñu jamono yi tey looloo tax ba dañ naan firi gént daan ci xool place daan ci xool jamono daan ci xool façon nit ki ak yooyu ay nit mën nañ bokk benn gént fekk la ñuy firi du benn ndax seen position nekkul benn mu ne it bu dee da ngay firil nit ki géntam ca gént googee nga xam ne neexu ko ngalawaay bu ko ko firil mi ngi noonu bu ko ko firil ndax xam nañ ni yonent bi alayhi salaam dana wax naan gént day tair la mooy gaaf la gu tege ci kaw nit suñ ko firi rek mën naa dal ci kawam looloo tax lu neexul moom bu ko firi mi ngi noonu xanaa nga firi ko la gaa yi doon nettali ñu ne buur bi daal tëdd gént bëñam yépp rocceeku daanu ci suuf mu woo benn borom xam-xam firi ko di gént na ko waaw man lii laa gént loolu lu muy firi mu ne ko ah bu dul li muy firil mooy ñi nga bokkal ñépp dañuy dee sa kanam mu ne xaaral yow ma rey la balaa ñoo dee ñoom daal di woo beneen firi këtu caamin na ko waaw yow man de damaa gént sax ba ñëpp a tuuru lu muy firi mu ne ko biir buur bégal loolu lu muy firi sa mbokk yëpp laa ci gën a gudd fan mu ne ko ah très bien jox ko jox jox jox ko neexal waaw gars gars yi ñaa ñaari firi yi da xam na différence amul différence waaye waxin bi am différence waaw loolu it muy wane ne toujours tamit nit ki mën nga ko wax dëgg mu bañ ko fekk na nga ko ko waxee moo tax li ngi noonu loolu loolu ñu bàyyi ci xel bu baax waaw xam naa maa ngi jëkkante ak fin bunt bi moo tax dogguma pour question yi mu ne it buñ jëlee beneen bint wala ba'sa bi insha bi bi bi wala ba'sa bi bi inshaadi shi'r dara nekkul ci ñuy yëkkati ay way génne ay way wa ma xafa min ash-sha'ri ahsan waaye la nga xam ne moo ca woyof day loolu mooy gën ca la ca gudd wala yanbaghi an yuksira minhu yeyul ci ci julit muy baril nekk ci ay way wa wa min shughli bihi nekk lu yey ci julit mu nekk waykat mooy addunaam yépp mooy way wa ulul wa ulal ulumi la gën a yey ci xam-xam wa afdaluha la gën ci xam-xam wa aqrabuha ila allah di gën a jegel ci yàlla mooy ilmu diinihi wa shara'ihi ñu xam diineem xam shari'am mimma amara bihi ca la yàlla dégle wa naha anhu ca tere ko wa daa ilayhi ca daa di cay woote wa hadda alayhi daa di cay ñaax jëme fi kitaabihi wa ala lisaani nabiyihi ca téeréem ba ak ci lammiñu yonentam ba wal fiqhu fi zalik ak jéem a am xam-xamu comprendre ci loolu al fiq mooy nga am dégg-dégg mi ngi noonu wal fahm fihi al fiq wal fahm ñaar yépp benn la dégg-dégg lay firi wa tahammum bi riayatihi ak it ittewoo lool ci sàmm xam-xam boobe waaye nag wal amalu bihi ak jëfe ko it wal ilmu afdalul amal xam-xam mooy jëf bi gën ci jëf yi wa aqrabul ulama ila allah ka gën a jege ci borom xam-xam yi ci yàlla day mooy awlaahum bihi ña nga xam ne ñoo gën a yey ci xam mi ngi noonu wa awlaahum bihi ak ña gën a yey ci yàlla mooy aksaruhum lahu xashiya mooy ñi nga xam ne ñoo gën a tar ci yàlla ragal gën ko ragal wa fi ma indahu raghba ak la nga xam ne nekk na ci yàlla muy njéggiram ak yërmaaneem ak àjjana gën caa nekk di xemmeem kon mbokk day wax ni julit mën naa nekk yëkkati way yonent bi alayhi salaam am na ñu ko doon wayal hassan ibnu sabit kaab ibnu malik abdullah ibnu rawaha ñi ñëpp dañ ko doon wayal ndax arab yi dafa bokkoon ci seen xeex mooy di sànnante ay ay way mi ngi noon poésie mu ne nag loolu kenn waru koo baril jullit it warul def liggéeyam nekk boykat malheureusement suñ jamonoy tey ñi gën a riche ci dëkk bi mooy woykat yi mu ne warul def liggéeyam woykat mu ne na nga yow mi bëgg a jàng xam-xam xamal ne xam-xam ba gën mooy xam-xam ba lay jegeel sa boroom di la ca jiitu mooy xam-xamu sharia donte ne ni mooy xam-xam ba yoon ne lii dagan na lii xaram na loolee ñu yàlla ñaaxaate ca wàcc ko ci téeréem wàcc ko ci làmmiñu yonentam sallallahu alayhi wa sallam nga fexe ba xam loolu muy benn comprendre ko ittewoo jëfe ko loolu day mooy la gën mi ngi noonu la gën ca la ngay jëfe bokk na ca sakku xam-xam ba am xam-xam ñi gën a jege yàlla ci borom xam-xam yi it mooy ñi nga xam ne xam-xam ba da la yóbbu ci ragal yàlla yóbbu leen ci xemmem la nga xam ne ay xéewalam lii kon mbokk nañu xam ni xam-xam yi luy jëriñ doomu aadama rek baax na maçon ingénieur nga am architecte nga am lu mën a doon waaye nag la jiitu ci loo xame ni moom warul mën a ñàkk abadan mooy fexe ba xam sa nga xam ne mooy fardu ay nii mooy sa diine loolu mi ngi noonu mu ne nag wal ilmu lii di xam-xam day dalilun ilal xayraat tegtal la boo xam ni dafay jëmi ca jëf yu yiw ya wa qaidun ilayha day womma ci jëmi ca mi ngi noonu mu ne nag wal ja'u ila kitabillah wala ja'u ila kitabillah dem làqu ji ca téerab yàlla ba azza wa jal wa sunnati nabiyihi ak sunna yonentam wa ittibaai sabilil muminin nga toppit la nga xam ne mooy yoonu julit ñi wa xayril quruun ak ña nga xam ne ñoo gën ci maas yépp min xayri umma ci ñi gën ci umma yi fi mas a jaar yépp uxrijat linnaas ya nga xam ne yàlla génne na ca loolu loolu day najaatun loolu mucc la mi ngi noonu kon boo bëggee mucc saxal ci téereb yàlla bi sunna yonente bi ak la sahaaba ya nekkoon nga xam ne ñooy maas gi gën ci maas yi ñett yooyu mooy lay tax a mucce wa fil mafzai ila zalika al isma nga daw nag laqu ji ci loolu ay ku mel ne ku daw tiit laqu ji ci loolu loolu rek mooy muccal lay mën a muccal nit ki mooy diine mu tënk ko ci alxuraan sunna doxalinu sahaba ya wa fi ittibaai salafi salih ak topp njiit yu baax ya day najaat lii de mooy mucc waay wa humul qudwatu fi ta'wili ma ta'awwaluhu ñoom ñooy royukaay ci firi la nga xam ne ñoom firi nañ ko wa stixraaji mastanbatuuhu ak génne la nga xam ne nii ñoom xalaate nañ ko ca dajale alxuraan ak sunna génne ca atte loolu mooy istinbaat la nga xam ne génne nañ ko wa isaxtalafu suñ demee nag ba salafu saalix wuute muy sahaaba yaag borom xam-xam yi jiitu fil furuu ca la nga xam ne moom mooy wàllu cari diine ji wal xawaadis ak ya nga xam ne dafa sosu gannaaw lam yuxraj an jamaatihim yow julil fexeel ba bul génn mukk nag la nga xam ne mooy mboolem sahaaba yooyee kon mbokk kii day wax rek ne nañu xamee ni lay tegtal jëme ci yiw mooy xam-xam mbokk diin du lu ñuy donn diin lañ koy jàng ca it yow mi bëgg mucc gallawaay dawal làqu ju ca téere bu yàlla ba dawal làqu ju sunna yonente bi alayhi salaam dawal làqu ju ca sahaaba ya topp ñooñu day ñooñu ñooy suñuy royukaay nañu dégge woon alquran ak sunna noonu nga ko war a dégge looloo tax dañ naan wal fahmu mi ngi noonu ala fahmi salafu salih julit diine mooy alkitab wa sunna ala fahmi salafu salih te na ko sahaaba yi firee woon noonu rek lañ ko war a firee léegi-léegi nag juuyoo dana am juuyoo wuñu ci pas-pas yi waaye léegi rek ñu juuyoo ci ay masala masalan ku tukki ndax day wàññeeg ñaata fa nag wala kasaak yu deme noonu mu ne yooyu bu amee am nga droit yow seet ca la la ca neex ca juuyoo boobee nga topp ko waaye wuroo sos beneen yoon ba bees boo xam ne yow yaa ko sos kenn ci borom xam-xam yële jiitu waxuñu ko woon looloo tax ba ku mel ni ibnu masud da daan wax naan topp leen ca bu leen sos ga yéen seen yombalal nañ leen mbir mi mbokk diini lépp loo ciy def na am ko la ca jiitu ca salafu salih waaye lépp loo xam ne xam-xamu diine la nga cay wax ca wax jooju kenn mësula caa jiitu ngal la waaye wax joojee teg ko ci suuf loolu tax mënul bul génn mukk seen mbooloo ma moom la borom xam-xam moom la borom téere bi wax daa di koy tëjee waxam ji mu ne walhamdulillahi alladi hadana li haza ñi ngi sant suñu borom mi nga xam ne moo ñu jubal ci lii nga xam ne jàngale nañ ko wa ma kunna li nahtadiya lawla an hadana allah ñun day nekkuñu woon mukk di jub sudul woon ak suñu borom yàlla subhanahu wa taala moo ñu jubal ci loolee ala kulli xaal doonte ne ne dolli na ci ab tëjaay mu ne qad atayna ala ma sharatna dikk nañu ak yéen ca lañ shartoo woon an naatiya bihi ca ñu indi ko fi kitaabina haza ci suñu téere bi mimma yantafiu bihi insha allah ngiree mu mën caa jëriñu bu soobee yàlla man raxiba fi taalimi zalika min si min sigaar ci mu koy jàngale ña nga xam ne ñooy ndaw ña wa man ihtaja wa man ihtaaja ilayhi min alkibaar ak ña cay jëriñ ña cay ña ca aajowoo ca mag ña wa fihi ma yuaddi aljahil ca fii day ca loolee dana ca mën a am borom xam-xam ba ila ilmin ma yactaqiduhu fi diinihi dana ca mën a xam dana maa yu addil jaahil nekk na ci téere bi day loo xam ne danay jox ka xamul woon ila ilmin maa yactaqiduhu fi diinihi ci moo xam la muy fas ci diineem wa yaamalu bihi min faraidihi mu koy jàngale ci xam-xamam ba wa yufhimu kasiran min usuli lfiqi wa fununihi dana ca mën a dégg it la nga xam ne lu bari la ci cosaanu fiq ak ay caram wa min assunani wa ragaib ak la nga xam ne ay sunna la ak yañu xemmem wal adab ak i teggin wa ana asalullah azza wa jal maa ngi ñaan yàlla an yanfaana wa iyaaka moo jëriñ ma ak yow mi koy jàng bi ma allamana ca la nga xam ne ni jàngal nañ ko wa yuinuna wa iyaak moo dimbali ñu ak yow ala alqiyaami bi xaqihi ci ñu taxaw ci aqam fi ma kallafana ca la nga xam ne teg nañu ko wala hawla wala quwwata illa billahi al ali al azim pexe kàttan nekkul lu dul ci yàlla mu kawe mi ca màgg ma wa sallallahu ala sayidina muhammadin nabiyihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasira amin kon mbokk mi ngi noonu ñi ngi ñaan yàlla ñu yàlla fayal borom téere bii di ibnu abi zayd xayrawaani ñi ngi ko commencé woon le 18 mars ci 2019 yàlla subhanahu wa taala dogal nañu jeexal ko tey lépp loo xam ne njëriñ la ci téere bi yàlla na yàlla wërsëgal ñu ko lépp loo xam ne ni yette nekk na ci ay tere yal na yàlla wërsëgal ñu moytu ko lépp loo xam ne nekk ci ay njuumte it yal na yàlla jéggal ñu ko mbokk mi ngi noonu wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain